قصيده جي موي قصيده جي مام سيرن مور واي شيخ محمد العالم لا تبزغت الغزالة في الظلام فصار النهي نجدا للهيام مام سيرن مور جوك موي واي سيرن شيخ العالم بي cheikh Mouhamadul Ali Mbaye maam sëriñ Mor ne soo ko xamul mooy sëriñ bi ko sëriñ Babacar booleeloon nee na gannaaw ba ma yàlla séddee ay way jur yu baax ne cheikh Mouhamadul Ali Mbaye moo ma jàngal xam-xam waaye tamit defal may mbir bokk na ca ni ma may naa la léppi tariqa bi jumlatan wa tafsilan maam Serigne Mor nee na xasida bii keroog ba ma ko koy woy dama gént moom Cheikh Mouhamadul Ali Mbaye mook Serigne Babacar Sy ñoom ñaar laa àndal nee na ñu seq ma ñuy dox ba ci benn géej géej gu nga xam ni dafa mel ni rek géeju meew la nee na ñu toog ba ci yàgg sëñ Babacar jël kaas tanq ko ci géeju meew gi jox ko Cheikh Mouhamadul Ali Mbay ni ko na ma ko jox sëriñ Moor ne Cheikh Mouhamadul Ali Mbay jox ma kaas bi nee na man naan ko ba fëgg pot bi bi ma naan naan ko ba mu jeex takk nee na ba ma ko naanee ba juutal pot ba delloo leen keroog ba ma xëyee ci laa woy woy wi naan تبزغت الغزالة في الظلام فصار نجدا للهيام وعجات مام علي نجوب موي وي تبزغت الغزالة في الظلام فصار النهي نجدا للهيام هيامي وإلا قد طمى بحر خضام أوازيه فيلقى رسامي بساحله بلا شك ضروب من الخيرات والرحمة ترامي فيا فوزا ويا مجدا وغنما لوارد فرضه مع النظام مام سيني مورا نغي فمن منا ومن منكم فقولوا لنا حقا تقاس بذا لهامي لقد ضن الزمان وشحقت عن بزمجة ذا الفريد وزوز الزمام تكت شعار القطب إرشاد العباد بتعليم وتربية مدام نقاوة كل علم قد حواها فيبذل احتسابا للأنام ته ولا يصدنه عن ذاك عسر ولا يسر فقل مدى الأيام دقل منان قناعته بربي قد نفت كل لتفريق في مجلسه الرزام تبقى نك منان غني لا يقص له مكان wala alfaqiiru yutraxu fi ridaami ma ne ko xanaa kon lii ci sa sëriñ nga ko donde maam sëriñ moor mu ngi wax ci bayit bii nee na cheikh kër cheikh mouhamadul ali mbay boo fa ñëwee ngir soxla boo fa ñëwee ngir aajo nee na woon fa ku am ak ko ñàkk dañ koy teg ci yoon bu sa heure dugg jotee rek nga dugg gis góor gi moo tax ma ni غني لا يقص له مكان ولا الفقير يطرح في الرضام لقد قاد العباد إلى المعالي فيسقيهم ذنوبا بالرجام تكت غروب المجد والإيمان ترا وأصناف المعارف بالتالي تمامي إذا ما زرت ملجانا تجد يذكر الله في كل الكلام maam sëriñ Moor ne saa boo demee seeti Cheikh Mamadou Ali Mbaye moo xam seet ga danga ko bet wala danga koo waaj nee doo ko fekk mukk lu dul ni dafa nekk ci di tudd yàlla mo xam mu yar alquran diko jàng wala mu tey kurusam waaye doo ko fekk mu tok iza ma zurta malja'ana tajiduhu yuzakkiru llaha fi kulli kalami نصائح حبرنا يغني مريدا عن الأذكار في جنح الظلام تكت وأجدى بالطلاسم والجداول ثماد ليس يشبه بالخضام سيرين مورني وقتانو سي محمود عالم بي رك دالاي جاغالا تي يالا ني لولم واخ نك بو تي امي لوي فصل قولي لمن عرف الرجال ولا تسقي في مسكك زكامي لقد شهدت بذلكم عدول شموش للشريعة ذو تمام سيرين مورني نخ محمد علي مباي نمو مل ني لول بول ورانتي دنكو يلاج غوري يالاي ني وايي بول يور سا غتو بارفون بو نيه bëgg a xam parfum bi neexaayam nga dem ci ku socc jox ko ko du xam ni mu xewal du xam xet ga moo tax mu ni fasal qawli liman arafa rijaala wala tusqi fi miskika zazzukaami laqad shahidat niyaabatuhu bi taaha niyaabatahu an tijaani saami ne soo ko xamul عنيت به أبا منصور قرمي وشيق أبي محمد مي سحامي علينا الشيق أحمد عالي حقا هو البهلول والعلم العلامي نيسو خمول كان موي محمد عالي مي موي باي سيرين منصور دي سيرين سيرين مايسا sëriñ Maysa nag magu sëriñ Moor la mook sëriñ Moor ñoo bokk ndey ak baay dinaay dégg mag ñi ñu ni yàlla mayoon na ko ci xam-xam lu toll ni moom sëriñ Maysa amul benn téere boo ko mën di waxal ci kaw suuf lu dul dina ni yër naa ko te yàlla mayoon na ko téere bu mën di doon su koy liir rek di ko wecceeku waat daawul liir téere di ko téye moom sëriñ Maysa moomu di magu sëriñ Moor yàlla defaloon na ko aajo boo mën di am ak nu mu mën di toll soo ñëwee du bind du la ni demal ba suba waaye am na suuf su mu doon gànnaayoo ca lay cof jox la te la ca gën a yéeme mooy yow commerçant nga ñëw ak sa aajo mu cof suuf jox la man ab jàngkat laa mu cof suuf jox ma yow ab président nga bëgg doon mu cof suuf jox la yow footballeur nga bëgg a doon mu cof suuf jox la koo koy sëriñ Maysa علينا الشيخ أحمد عالي حقا هو البهلول والعلم العلامي لين هين لكن لربي نصيح النصح ذو عزم بسام يسامح لا يداهن للخطام fi diini wala yu jaadilu baxin imaami tekat wa fi kullil umuuri tara huyaati bi awsatiha kama amaral humaamu humaami mooy yenent bi ne seemoon aali mbay ay jëfam yépp day day bàyyi xel la yenent bi waxoon yenent bi moo waxoon خير الأمور أوسطها سيما دال مي لول جيف موتاخ مون وفي كل الأمور تراويات بأوسطها كما أمر الهمام عليه مدى العصور في كل لحظ سلام الله مع الصحب الكرام ني دوكو غيس ولن ترى شيخنا في الفج يمشي إلا هونا وقارا باحتشامي خنا دا جفي القرآن وخون ni wala tamshi fil ardi marahan innaka lan taghriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula mam serigne mor ne se mamadou ali may do ko seen ci kaw suuf si muy dox di bajantu ولن ترى شيخنا في الفج يمشي إلا هونا وقارا باحتشامي تكات نين فوكو سينا موي دوخ دي دم فم جموني لبيت الله يخرج أو لأمر ترى فيه اقتداء أنزل غمام عليه صلاة منعمنا وعلى سابة واردي حوض الحمام يلازم غرزه في كل حال ليحفظ دينه دون الخصام له حلم بلا سفه وزهد بلا عزل ولا ترك الطعام da ngay deg ñu sëñ sangam mom du nit ndax mom du lek du nangam sëñ morne ne sëñ mamadou ali na cër yépp te dawul nëbbatu dawul teju dawul jafé jafelu dawul garaw garaw lu itam di ray bopam ñu na sëñ bi ci wor la dekk te du lek له حلم بلا سفه وزهد بلا عزل ولا ترك الطعام عدالة حبرنا في كل حال لأمر راق قطان الرغام ndeysaan bayit bi nag su ma ko liiree sama xel day dem ci jamono yële passé dama déggoon ñu ni ki raw ci xam-xamu arab léegi ci àddina bi mu ngi tudd diw dëkk réew sàngam ma tontu daal ni waaye xanaa ci ku ngeen xam de xanaa ku ngeen xam de ndax baat yi maam Serigne Mor wax fii kooku mënatuma nangu ku ko raw baat yi la am ron raaxa xuttaanar raxaami di nga dem ci dictionnaire sax te doo ko gis adaalatu xibrina fi kulli xaalin la am ron raaxa xuttaanar raxaami ولا استتراو في ناد وباب لذي أمر يجمجم للوسام دسان شي مام سيرين مور وليس هتاك كستر للبرايا ولا يشغي لواش زن نمامي moom مام سيرين مور بي li ñu mag ñi nettali ci moom nee nañ keroog ba suñu maam ñu woo maam Alioune Diop ne ko suñu maam mucc na muy ganek maam Serigne Mor àddina nee na ba mu xoolee ni gan gi lumu muy góor nee na maam Alioune Diop dafa yëkkati ñaari loxo yépp jëme ko ca kaw asamaan ni bari le barkeel lee ko gën loolu nag li ci suñu dégg-dégg maam Alioune Diop yàlla mayoon na ko fukki doom ak juróom-ñeent. fukk ñaak ñaar ñépp ay góor lañ kenn ku nekk ak sa cër amoon na ca ñu dox dem màkk amoon na ñu mokkal kaamil bind ko am na ñu nga xamante ne ci seen biir quarante ans ci lan am lu góoru yàlla di am waaye maam sëriñ Mor mii damay dégg Baye Jaw ni fa yàlla tibbale ñoom Seydil Xaaji Malick tibbale fa ñoom Serigne Babacar Si fa la ko yàlla tibbale Baye Jaw di ci yokk ni xawma martaba bu Serigne Aline Diop toge won waye Serigne Mor amna bu ko fawqa moy amna bu ko kawe motax maniko lo ilmun ka bahrin la yughasu fasal man qad tafanna nazal humami fa kam shayqan xawaa qasaba sibaaqi lahuwa asaasu ancumi zil faxaami ديغل مام سيغ مورك لم فكم وكم فكم وكم حبرا فريد لداته من بصاصة ضوئه نور الظلام وكم سبلا يصارع بالليوف بلقمته تقوى للهيام وكم فنن عن ألف حبر فأوضحه بنصح واحترام وكم لغس في كتب القوم خاف فبينه أخي دون النحام وكم غرقا في وحل الحزن لولا دعاء الشيخ أقعد في القتام وكم ملكا تمنى أن يجيب حفاوته ولم يرب الإدام <laughs> ديغل مام سيرين مور نك لا تي غن يمني وكم زن بن به قد صار رأسا رئيسا عاليا مثل سنامي مام سيرين مور لم يختي بيك بي نينا بارينا كودون نيو تي شيخ محمود العالم بي desub gannaaw mel ni géen ci daaba daaba mooy zawaatul arbaay borom ñeenti tànk fas ak xar ak nag ak bëy ak giléem ñooñu nga xam ni ñeenti tànk lañ yor suñ dee dox géen moo des ci ñoom gannaaw waaye nee na boo ñëwee ci ñoom des gannaaw nib géen nee na buñ la jàppee ba bàyyi la sooy dellu da nga jiitu ni bopp moo tax mu ni wa kam zan ban bi qad saara ra'san رئيسا عاليا مثل السنام بصدق ثم ضبط ثم لين وخفض الصوت ياتي بالكلام تكات بوكو نيخون ولو شئنا لأبديكم أمورا وأسرارا لا ينكر ذو السقام وينك ولكن قد كفى مجدا وفخرا ni niyaabatu xutbina al alamil alaami maam sëñ moor ne bu ñu neexoon ñu wax yeneen ak yeneen ci moom Cheikh Mamadou Ali Mbaye yu nga xam ni ku yàlla dimbaliwul sax féexal sa dënd da nga ko weddi waaye nee na du ko jar ndax doy na sëkk ñu tabal la martaba ñun la yaafi dond Serigne Babacar si mooy walakin qad kafa majdan wa faxran niyaabatu qutbin al alamil alaami lu tax moo fi doon sëñ Babacar wa qad shaydat bi dhalikum udulun shumushun li shariati zu tamaami nee na ñi seede loolu ay jant ci ci diine ji ay jant ci tariqa bi ñoo ko seede ndax ne Cheikh Mamadou Ali Mbaye maam sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu moo ko daan wax ni ko maa ngi yow nañu làng bu kenn jiitu te balaa may génn li nekk sama xol sax dinaa ci diisoo ak yow moo tax wa qad shahidat bi udulun shumushun lishariati zut tamami فبارك ربنا فيكم وفي من يليكم من عيالك والخدام أمين واي وأعطاكم إلهكم مناكم في نفسكم وقومكم الكرام امين وطول عمركم من غير ضعف في جسم او في دين يا سلام فلا زال المعارف والعلوم تصب على سهارجكم مدام تقلب في المراتب كل لحظ فتعرج للاله بلا انصرام maam sëñ Mor ñaanal na leen bay ñaanal magam ja sëriñ Maysa naan wa muctasimin bi xablika min muridin ka maysakumul garaami bilan qisaami fala zalat fuyudatul ilahi ilayhi minkumo madal ayaami di ñaan na seen barke barke sëñ Babacar ak barke sëñ Mama Laali Mbay naa leen fa haza moorukum bil baabi yarju xiraakum min nawaalikumu humaami naa leen seen moor maa ngi ci seen bunt di xaaraan seeni desit naa leen abaana xuz lana yadan muinan lana dunyan wa oxuran ya imaami naa leen maa ngi leen tàllal loxo de ngeen dimbali ma àddina ak àllaaxira abana xuz lana yadan muinan lana dunyan wa oxran ya imami فتسقينا أبعنا بالشراب طهور المرخد الجان السدامي وإن لم أك أهلا للعطايا فإلحاق لمن جودي سلامي nan ko yow yàlla sama gaay yi li may sàkku ci ñoom sama sëriñ yu baax yi su fekkee sax yayoo ma ko waaye ñoom xam nan nuñ may def naan yàlla bi lutfika yaa ilahi faghfiran ma مضى من كل ذنب مع أثام آمين وأن لا تبتلينا بعد ذنبا وهب لي ربنا حسن الختام وطاعة خير خلقك كل وقت لوجهك خالصا أبدا دوامي وهب كل لشيخي شيخي شيخي ومن لبى لدعوة ذي الحمام صلاة عد خلقك ألف ألف ودع فذاك ألفا من سلامه على بحر الحقيقة عين الزا تلعلية النور الساتع ذي الغمم على من قد رقى إلى الجليل ودان له الملائك باحترام على مفتاح غيبك قطب فلك جمال لسعدنا البدر التمام على من مدحه قد جاء نصا في سورة النون والقلم الرسام على المختار مركز كل خير وممد كل قمقام فعام وعلى النعمة العظمى الذي فيه محبته ينال كل المرام على النور المطلسم ذي المزايا هو النبي الكريم من الكرام تكت وعلى آله رب البرايا وعلى صحبه نجم الظلام بيت بمام سين مور تجوي keroog ba mu maam Serigne Mor wooyee ndeysaan dañu faa demoon ci ziyaaru sëti maam Mbay ma di ko wayal wayam wow mu wayan xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maam Serigne Mor daa dem màkk toog ci xabru yonent bi di woy yonent nan ko جئناك زائركم والقلب جاشعة يا واسط الكل في كل العطيات قصيدة googu laa ko doon wayal keroog maam Serigne Mor di muuñ ba mu daanelee bay waxtaan ni ma Serigne Mansour ma ni ko naam maam labbayka mu ni ma damaa woy sama Serigne benn woy te yow mii laa bëgg nga wayal ma ko ndax dégg naa li nga woy waaye ku ne xam na ni man mii la bëgg ma wayal ko ko ndax way wu nga xamante ni mu ngi ko bindoon 1971 ba mille 2020 mu koy doog a génn dama ko jox kon xam na ni sëtam bii la bëgg mu wayal ko ko waaye keroog ba ma maam Serigne Mor joxee xasida bii ni ma nag jàng ko ba mu mokk wayal ma ko ma yóbbu xasida bi bëgg koo jàng xaw ma fu may tàmbalee ak fu may yem man daal ma liir bayit bu njëkk ba ca xasida bi mooy tabazaxatil xazaalat fi zolaami fa soora ni yu najdan lil huyaami li ci des daal moom mu mel ni ay léeba ki lippoon ma dem ba ca bayit bu mujj ba dégg maam seen Mor naan fa nos mi adduha kun duuna zeydin fa kun rabbi lana abadan dawaami ma ni ah li may gàtt gàtt àlluwe li sama njàngum arab di ñàkk sore ku fa nazmi mooy sama way wi daal adduha soo ko doon konte kun kun nag maam Seydi Hajj mi waxoon na ko yàlla ni ko yaa jaaxilal xaali baynal kaafi wan nuuni yow mi nga xam yaay defar mbiri ci diggante kaaf ak nuun kun rek lay wax loola am alquran nee na innama amruhu ida arada shay'an an yaqulu lahu kun fa yakun maam Serigne moo ni fa nazmi adduha kun duna zaydin fa kun rabbi lana abadan dawaami ci la jël qasida bi dal di koy compter ni kun mom 70 la ma jël qasida bi jël sama kurs diko ko compter bayit ci kaw beuyit ba mu mat muy juróom-ñaar fekki beuyit mané ni ah wayu juróom-ñaar fekki bayit la mam maam sëñ moo naan fa nazmi adduha kun duna zeydin aha fa kun rabbi lana abadan dawami qasida bako mam seigne sëñ bindé ba pare jox ko magam ndaysan seigne Maysa bahrul ulumi ki nga xamanteni mom dafa melni xam-xam moko don sàkku mam seigne Maysa dadi lire qasida bi xol ba feex moni ma ahsana ma tarafraf bihi shafata shari' al adib fi salih saalixi najib ni yal nako yàlla barkel dara gënt neex shaacir bi waykat bi kàddu yu teey yu dal yu neex yi mu fi wax ak alxu ak arabam bu xóot bii di ko tagge ku tedd ku sell ku baax kii waaye kii daal yàlla na ko yàlla dimbali loolu la ca maam sëñ may sa teg fa tabarakallahu ñu di leen ñaanal ñoom ñëpp wér allahuma salli ala muhammadin wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin géwalu maamam mahamadul mansour dem addayaawi assaawiyu